àndad ki ñu àndal la neex laaj sëriñ Haadi la ñu àndal lu ñu neex laaj Haadi ñasu dundal ma ne dundal ba kontaan boo naree gàttal yow jëlal samay faan bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf mbokk yi si Diine ji TV ñu ngi leen bu baax baax di leen siyaar amaan mbégte kontaan te dellu siwaat te gën seen émission laaj tontu ni ñu baaxoo di ko def ay bés yu ci waxtu wi ngeen di ci àndal al Oustaz Cheikh Mouhamadul ci wàllu tont yi wàllu laaj yi ngeen ci ànd seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci wàllum laaj yi sëriñ bi maa ngi bu baax a baax ndokkeel la ñaanal la jàmm li baaxoo di ko wax li ngeen mooy lay taayale ko benn waxtaan waaye question yi dafa bari lool suñu kanam te it ñu koy yónnee soxla réponse bi moo tax damay ñëw rek ñu attaqué li nga xam ne moo di question bi salaamaaleykum sëriñ bi maa ngi lay ziar bu baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabi rahma wa kaashifi l umma wa shafii l umma sayidina muhammadin wa wa sahabatihi l aimma wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi l bokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn diine ji tv di ko wettalikoo fu ngeen mun di nekk maa ngi leen di boolee ci baat yi ngeen miin muy asalaamu aleykum wa wa barakaatu. waaleykum salaam. gël siwaat ci kartanal yàlla fas yéene tontu laaj yi nga xam ne jot nañ ko ci semaine yi yëpp passé tem li waxtu yi maye ak ñàkk fasax gi ak tabaarakallaahu ñàkk xam-xam bi bisimilah. Mhm. jërëjëf al allah kii dafay laaj oustaz nee dafa bëggoon nga dikkal ko ci waxtu askaaru salaam ak askaaru masa waxtu la bëggoon xam fan la commencé fan la yem. waaw azkaarul masa ak azkaaru sabaax azkaarul azkaaru sabaax azkaarul masa buñ ko waxee mooy ay ñaan yoo xam ne dañ koo jëlee ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jullit bu xëyee di ko def bu ngoonee mu koy def buñ ne suba nag azkaaru sabaax yi fi nga sëlmalee julleeg suba rek azkaaru sabaax yépp nuyu nañ la ca muxtaaram ma muxtaaram ma dana dem ba 11h foo ko fi defee baax na soo xatee ba xat daro réew bi mën naa dépare 11 ba bay jant bi di soxee yu ngoon ya timit fu ñu waxee ngoon bu jant bi soxee rek ngoon ñëw na am na sax ñu jàppalee ngoon bu tàkkusaan jotee rek commencé na ci muxtaar ma dema dem ba gee bu fekkee ne nag danga xat gannaaw gee ba bay fajar di xaree lépp loo ko ki def hmm. baax na kon yooyu mooy ay wax ay waxtoom ci diggante muxtaar ak daruur yi mhm. yaakaar naa loolu ni ma ko waxee dégg na ko mhm. bu suba bi daal fa nga selmalee suba ba onze heures mooy muxtaar mi daruur yi bi suba onze ba jant bi sox mhm. bu fekkee bu ngoon bi la ah tàkkusaan ba gexe wala timis ba gexe lu ko dooree nag daruur yi ba commencé gexe ba fajar xar lépp luy xam ne dañ ko war a def muy ay afkaar ci ngoon gi wala ci suba bi boo ko tàbbalee ci waxtu yooyu baax na bu xatee nag tey yi nga waroon a def ci suba gi sax nga fàtte ko ba far guddi sax mën nga koo fayaat wala fi jaala layla wan nahaara xilfatan liman araada an yadakara loolu la alquran wax mooy azkaari sabaax yi bu fekkee da nga koo fàtte wala nga xat ba defoo ko ba jant bi so tamit terewul mën nga koo def foofa yi ñu war a def tamit ci guddi yi boo ko fàtte woon defoo ko ba fajar xar tamit mën nga koo def ëllëg tamit ca ca ca ca suba ga lu dul yenn dañ ko utal waxtu lu mel ni mu musabbaatul ashri kooku moom dañoo bëgg avant jant bi di fenk nga def ko def ko tamit avant jant bi di so waaye gis nga boo ko fàtte woon wala nga xat ba jant bi fenk mbaa ba jant bi so tamit terewul mën nga koo def. si mm-hmm. Ahmed Tidiane. Mm-hmm. macha allah leer na oustaz kii dem dafay laaj ci moom it eh, nee na ba fekkente ni wala ba eh, waaw. bu fekkee da nga woo sa soxna téléphone nga ne ko jox ma sama yaay mu jox téléphone bi yaay ji yow nga ni sa yaay euh, soxna si de dama koy fase gannaaw si gi bi soxna si bi yaay ji waxee téléphone ba delloo téléphone bi soxna si fekk téléphone bi day enregistré soxna si déglu ko dégg nga ni sa yaay damay fase soxna si est-ce que loolu fase bi day bi wala. dama koy dama koy fase kay fasee ko waaye bu noon fase naa ko. Hmm. day door a mën a àtte door di moom la juddu. Hmm. waaye dama koy fase looy togg la te ñoragut. Hmm. nit nak boy togg lu ñoragul mënaguñ ko yak wax sa jabar wax sa dom wax sa bay wax sa yaay dana fase sama jabar ji taxagul mu nekk fase hmm. bala ñoo atté né fase ma amna, moy né ko fase na sama jabar ji gëna bi nga waxé nak nga fexé ba nga wax ko direct boko ko mën ta wax direct mu nekk indirect bo xamé timi dafa am ci kum jaar ba yegg ci mom hmm. mo xam ci kaddu la mo xam ci lettre la yoyé yépp bu xasee yegg ca moom rek fase ma tàbbi na buy leetar sax dañoo wax ne jamono ji nga koy bind boo kasee dogu rek ca bind ma boo ko bindee fekk dogu ga ca sax même bu xeggagut ci moom sax fase ma tàbbi waaye danaa moom borom dogoogut waaw lu ñu togg lu ñoragul la mhm. kon loolu kenn du ko tuddee fase même bu ko soxna si déggoon tamit yaay ji mu mu jaare ca message ba tamit fase amagu mhm. waaye daal danaa fase ak fase naa duñ benn Cheikh Ahmed Tidiane. doy la gudd daal <laughs> doy la gudd nee na tamit dafay laajte oustaz moom euh, dafa nekk ak borom këram waaye diggante bi taxul ko neex maanaam daal euh, xam naa jubóowuñu euh, bu ñu tëdd nag xale yooyu muy jël doom yi dugal ko si digganteem ak jëkkëram ci kaw laal bi lay laaj est ce que xale yi bu màggee loolu du suyee dara ci ñoom. waaw loolu gënul dañuy bëgg sax. ay xale am na as boo xam ne buñ ci xasee toll waruñoo bokk ak seen ñaari waajur yi ci benn la mm-hmm. bu ko man man manee woon sax ñu ñoom ñu bokk ak seen waajur yi ci benn néeg rawat na nag ngay jël di ko digale seen digganteeg ñoom te xale yi dañoo gaaw a yeew mm-hmm. ci gis foog ne xamul dara mm-hmm. fekk mën na laa jaay dafa mel ni ji jamono mag ñu njëkk ñu ñoo dekki waaw moo tax xale boo fi gis rek man am am na mag moo ko ko mën a attee ni kii maam diwla woon moo xam muy maam diw mu jigéen moo xam muy maam diw muy góor waaye daal nañ yëg ne mag ñu mag ñu njëkk ña fa mel ni daal ñoo dekki xale yi dañoo yeewu lool mm. moo tax yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel te loolu mën naa am ak jeexital mm. ku muy bàyyi ci ñoom mm-hmm. ta xale ñaareel am na ki ñoo xam ne bu seen seen fitra boobu bu yàquwut buñ demoon ba màgget tamit dañ koy fàttali mm-hmm. diggante bi nag bu fitra bi yàqoo mooy waral ngay gaaw fàtte mm-hmm. waaye fitra bi yàlla bindee woon muy ak sell bu yàqu nit ki mën naa dem ba màgg di fàttaliku loo xam ne jamono ja muy nekk ndaw la ko arrivé woon hmm. wala mu arrivé woon ay waajuram ah. moo tax yenn kàddu yi euh, di ko moytandiku ci ñaar ñi denket ki si kanam seen doom lu ama am solo waaw daan lu ama am solo la hmm. da ngay xale yi ay xale lañ hmm. fekk xale yi mën nañ laa jaay wala a muus fuuf yi jamono xale boo amee ñaari at jëm ñett rek lu ne lu ne lu ne xam na ko yàlla seede na loola kon hmm. loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf euh, li koy firndeel mooy kii nee na euh, doomam xale la waaye dafa yàlla dafa dogal day jàng léegi nag bu ñu julli ci kër gi day bëgg moom mooy jiite julli gi waaye ay atam ko koo demee noonu juróom benn jàpp juróom-ñaar est-ce que dina leen mën a jiite ñoom mbooloo man na leen a jiite ci naafila wala mu jiite ay moromam ci farata waaye bu dee farata la nag moom du mën a jiite ñi nga xam ne dañoo mësoor muy baayam ak yaayam ak ñeneen ñi nekk ca kër ga da xale bi julli war wér na ko waaye waragu ko hmm. te baayam ak yaayam ak ñu mësoor ngi ci kër ga yëpp julli fale leen a war ba pare yàlla bi ko wér koo xam ne nag julli fa koo waaye waragu ko mënta jiite koo xam ne julli da ko warta wér ko moo tax buy naafile dana mën a baax donte moom mooma mësoor a gunte ña jiite mësoor waaye bu ci farata ñu mësooru ni moom la mën a jiite wala mu jiite ñoo xamee ne nii euh, mësoor euh, a daal nekk ay ay xale ni moom mm-hmm. comme farata la mm-hmm. waaye bu ci jiitee ñu mësoor rek seen julli ya wérut loolu mooy masab Malik mm-hmm. Mhm. macha allah kii dafay laaj moom itam nee na euh, su day teel a xëy moo tax parfois bu yeewoo bu julli ba pare day wasifa këram su duggee ci kaar bi doo ko wirdo muy laaj ba xam ndax jiital wasifa bi doo ko indi wirdo bi baax na. ñaar yëpp baax nañ su fekkee ca waxtu wala kay yow kay julli nga suba ba pare wasifa nuyu na la. bu suba bi wirdo tamit nuyu na la bu la ci neex njëkk a fay. Mhm. su fekkee da ngaa bokk ci ñi nga xam ne bu ñu sëlmalee lal ma laa nangu wasifa ma ci suba ga. man nga njëkkee wasifa wa ndax ba la ma fàtt te seexu tigaan fa daan wax ne ashabi ashabul wasifa soo ko defee ba pare nag door def sa wir doowu suba wa hmm. naka noonu boo bokkee ñi nga xamante ni buñ julee tàkkusaan rek gaaw lal ma laa nam wasifa ma te foofu la waxtoom ma commencé ma nga wir do wa hmm. man nga ànd ak ñoom ca mbooloo ma boo demee ba ba pare door def sa sa wir do wi ñoom ñaar daal ñoo bokk muxtaar ci ñoo bokk timit daruur yi muy ca suba ga ak ca ngoon ga ci yow muy wasifa ñaar yoon hmm. su boobaa nag ku la ci neex jiital bu dee yow wasifa yow muy wasifa ci benn yoon tamit soo jullee tàkkusaan ba pare bu la neexee wirdo bu la neexee tamit nga wasifa bu bu la ci neex ci ñoom ñaar tamit nga jiital hmm. kon yooyu dara nekkut ci ah, su fekkee ne nag moom wàllu jiital la mooy waxtu wa jotagut hmm. ci guddi gi nga ko bëgg a def waaw man ngaa jiital wasifa ci sartaab su fekkee da ngay wasifa ñaari yoon kuy wasifa ñaari yoon mën naa jiital waaye kuy wasifa benn yoon nag moom du mën a jiital wasifa ndax ñaar fukki waxtoog ñeent yëpp waxtoom la ndax benn yoon la la ci war ci ñaar fukki waxtu yoon ñeent su fekkee na da nga da ngay wasifa ñaari yoon nag bu la neexee mën ngaa jiital wu suba wi maanaam ca guddi ga su boobaa loolu dana dagan waaye na nga bàyyi woon ba waxtu ba jot na nga koy defee ci mbooloo ma moo ëpp yoon fuuf nag te loolu tamit moo gën mm-hmm. Hmm. macha allah ñaari yëpp ndax ñaari ñaari wasifa yëpp sax na ci tariqa bi. Hmm. seexu tijaan wasifa na benn yoon seexu tijaan wasifa na ñaari yoon. Hmm. moo tax bu ca waay def rek baax na. incha allah kii dafay laaj moom it nee na benn magam dafa demoon ci géej yal yàlla dogal mu des ci ndox bi wala boog euh, xam naa ne daal demoon na ci géej gi euh, amuñ information ci moom ci dafa génn àdduna wala génn àdduna gannaaw si gi nag dajal ko ndax la ñuy jàpp mooy dafa des ci ndox mi soxnaam nag euh, mu jul ko tenju muy laaj ba xam ndax soxna soosu mu bàyyi fi te tenjuwul dinañ ko mën a dencaat. waaw su fekkee ne bi ñu jot information bi ne jëkkër ji dee na diggante boobu ak fi mu deexee ak fi jotee information bi mën na ñeenti weer ak fukki fan. soxna sa dootul ténjati te du tere buñ jisee keneen ku ko bëgg mën na koo takk hmm. waaye su fekkee biñ jotee information bi ak fi mu dee biñ ko seetee manqué na ñeenti weer ak fukki fan la ca manqué rek lay mottali ñu ngi mel ni dee na ba am trois mois ñu door di ko yëg hmm. kon soxna sa buy tënji weer lay tënji ak fukki fan su fekkee biñ koy yëg ak mën na quatre mois di jours rek lay lay lay tënji su fekkoon ne biñ koy yëg ak na deux mën na quatre mois huit jours su boobaa ñaari fan rek lay tëjji su fekkee biñ koy yëg ak na far ëpp na quatre mois ak dix jours wala mu mat ko su boobaa moom dootul tënjati te ñàkk a tënjeem googa terewut yeddam jeex na bu gisee jëleen jëkkër mën naa sëy ci sartaab fekkee ëmbutoon hmm. su fekkee dana ëmboon nag moom euh, lu distance ba yàgg-yàgg lay tënjeem mooy simbi ippi simbi maanaam imbi lim ëmboon rek bis bu demee ba imbi lam ëmboon rek ténjeem jeex na moo xam mu ëpp ñeenti weer ak fukki fan ci dee ak jëkkër ji moo xam mu manqué ko su ba daal bu xasee imbi rek ténjeem jeex na bu ulaatul ahmaali ajalahunna an yadana hamlahunna yaakaar naa a wax daal dégg na leer na kii dafay laajte moom ustaas nee na dafa am jur yu ñëwoon seen dëkk yàlla dogal yàgg nañ fa lool nag ba am nañ fa sax euh, doom muy laajte ba xam ndax jur yooyu euh, mën nañ ko jël ñu jaay ko séddoo ko ñoom waa dëkk ba wala boog ñu jël ko euh, rendi ko daal di séddi la ndawal gi wala jur yi nan lañ war a def ak moom gannaaw buñ ko yéebaanee nag mënuñ bis borom buñ jéebaanee ba sonn daal ci suñ boromam hmm. mën nañ koo saraxe bis bu borom feeñee ñu xamal ko ne ko waa ah, ñoo ko saraxe ci dëkk bi lañ ko saraxee nii lañ ko saraxee hmm. bu fekkee ne bëgg na yool mu féete woo yool bañ ko yéene woon su fekkee bëggul yool waa dëkk ba képp ku ca lekkoon ak noo ca mënoon a lekkee ñu cotiser lépp jéem ko ko fay. loolu daal moo ca mooy moo ca mën a nekk. waaye gisuñ jur yi rek nañ jël lekk nangam bis bu borom feeñee de dañuy fay bu fekkee tamit dañoo gisuñ juróom yi dem saraxe ko bu borom feeñee tamit te nangu fut fete féetewoo yool ba yéen ñooña saraxoo ko waa ngeen saraxe ko yéen ay féetewoo yool ba da ngeen fay waaj ji juróom yi. Cheikh nee na da fay laj oustaz moom itam neena ko koo eh, ci l'islam xamnañ ne bu fekke da nga denci wala ñu lay denci bo ndialo sa atte mooy dañu la wara ray bu fekkenti ne nak mos nga denci wala bu mos nañ la denci gannaaw si ci nekkatoo ci bu est ce bo ndialo atte bu moy teggu saka wala yer yi ngay dal sa kaw comme mos na nek ci buum rek donte ben yon la am ak rapport ak jeuker ji sax hmm. jeuker ji fasé ko wala jeuker ja dé su boba muy gor gi muy jigen gi sangewu boo xasee am na bis boo njaalootee moo xam yaa ngi ci buum ak sëy moo xam nekk nekkoo ca atte bi ci waroon ba tey moo cay war rek dañ lay rey booy góor dañ lay ray su fekkee da ngay jigéen waaye tekkiwul ña ray ga dañ koy tënk ci ne na fekk nga nekk ci buum ak sëy boo ci mosoon a nekk rek donte benn yoon nga mos am rapport ak sa jëkkër wala sa jëkkër benn yoon la mos a am rapport ak jabaram hmm. su boobaa bu dee amee ci kenn wala maanaam sëy ba tas ci kenn ci ñoom lu mën a doon wala ci ñoom ñaar sëy ba tas lu mën a am bis buñ jaalootee nekk nañ ci boobu ak sëy nekkuñ ci yëpp dañ leen war a rey mm-hmm. at bi day dal seen ci moom itam oustaz ba tey jii nee na dakk jaaro ñaari ci góor nee na dañ koy tere loolu lislaam araamal la wala loo xam ne daf ñu ko sib rek xam naa xew na de léeg-léeg nga gis sax góor gu takk ñeenti jaaro mm-hmm. góor daal yàlla da ko bind ci taar bu mat ne ko kon jëratul ngay mottalikoo dara loo mottalikoo ci wàllu takkaay dafa la yóbbu ci ñàkk korom ndax lu xas mag dootuñ ko mottaleeti jigéen yàlla bind ko ci taar bu manki ne ko yow faw nga mottalikoo takkaay li ko may sa taar du mat moo tax mu may jigéen mu mën a mottalikoo taaram ci ay jaarooy nopp donte le or la jamaa la yëpp baax na mbaa mu mottalikoo ko ci seen bu muy takk mbaa mu ko ci ay lam mbaa mu mottalikoo ko ci ay jaaroo nu mën a toll waaye nag góor mi taaram mat moom dañ ne ko xaraamal nañ ci yow seen jaarooy nopp donte xew na mm-hmm. ay lam liñ la may daal mooy benn jaaroo rek te jaaro ba tamit yóbbu ko ci tëgg yi bañ xam ne passé wul ñaari dërëmi yoon bu ëppee sax ñaari dërëmi yoon donte benn jaaro la xaram na hmm. yonentu bi lañu yàlla royloo gisuñu ci benn téere ci ñuy jàngale siira ne mos naa takk lu ëpp benn jaaro hmm. benn jaaro lay takk léeg mu jël njooñ la féetale ko kaw léeg mu jël njooñ la féetale ko suuf li gënoon a bëri sax suuf la ko daan féetale hmm. ndax moom léppam tawaadu la waaye nag donte jamono ji xam nga xale yu bari yàkkamti bëgg a ubbeeku dem ci sëriñ yu bari ñu leen di nax rek dem ñi bindal la nangam ne li jaaro la buy ubbi nga demaat ci kële mu bindal la ko nga ne ah ñaari sëriñ yëpp laa xoolu kon ñaari jaaro yëpp laa takk man koy su ma yow daal gannaaw bi nga xamee ne wóor na ne passé wu ñaari dërëm yoon nga awante ko rek nga takk bi léeg nga tekki ko takk bale comme ñaari ñam nga xoolu mhm. waaye boole leen ci benn ci ci benn jamono mhm. boo ca jubloo ubbeeku da nga cay tëju ndax yàlla lépp lum tere njariñ nekkut ca lépp lum digle loraange nekkut ca mm-hmm. loraange maanaam nekkut ca kon nag moo tax na nañuy bàyyi xel ci loolu mm-hmm. benn jaaro doy na léegi nag man léegi-léegi da nga ñuy góor ñëw ñu la takk ñeenti jaaro mm-hmm. dama sax boo boo ko gisee sax daanaam nga xool loxo ba sax dafay ñàkk xorom lool waaw dafay ñàkk xorom waaw moo tax fi nekkee xéeféer yi di naan yàlla jigéen lañ yàlla dafa mer ne ama yansaw fil xilyati wa huwa fil xisaami xayru mubin jigéen mi nga xam ne dafay mottali koo takkaay ngir ñàkk a mat ci taar koo xam ne buy wax sax lu ko naqari balaa jeex tur ronkañam ngeen ma koy askane ta yéen nangu leen koo jur mm-hmm. kon foofu dafay wane ne jigéen taaram dafa manqué na mottali koo takkaay góor taaram dafa mat du mottali koo takkaay mm-hmm. am ñu a aman yu aman yu nasawu fil xilyati wa huwa fil xisaami xayru mubin mm-hmm. macha allah léegi-léegi sax nga gis koo xam ne sax du takk ñaar waaye benn ba muy takk rek euh, daanaka buñ ko peese woon euh, ëpp na ëpp na ngeen di jaaro rëy ga euh, bu mag loolu lay doon. man na laa gaañ sax coono bi day métti sax wallaay. waaw ak coono bi ak lagar lagar ga daal moom daal. wallaay wallaay daal àdduna ko yanu. waaw waaw àdduna boo loolu na nag yenu àdduna la moom yenu àdduna la kii itam dafay laaj oustaz nee na ndax koo xam ne dafa am ndog euh, par exemple koo xamante ni euh, wala seen benn mbokk dafa mbëkkoon benn xale yàlla dogal ñu téye war ko tëj deux mois mu ne ndax kooku dina mën a lekk euh, asaka. ah kooku kay comme ba mu mbëkkagul xale bi sax te yàlla dogal amut lum dundee ren ba déwén te jamono jii daanaka moo gën a bëri. Mm. ba tax mënoon naa lekk asaka rawatina nag ba demee ba far ndog moomu daal ko hmm. fa mu nekk mënut faa génn mënut a liggéey te mënut yenn yi ko kay koo jox asaka ñaari payoor ngay am hmm. da ngay am payooru génnee asaka ji am payooru maanaam xat-xat ba mu nekk noonu nga jàppale ko ca hmm. moo tax kon kooku dëgg-dëgg xeeyoon na asaka dara nekkut ci mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Eh, kii dafay laaj moom itam mu nga bitim réew nee na parfois bu wirdo yaayam da koy woo téléphone waaye nag bu ko yaay ji wooyee daanaka yaay ji day ci téléphone bi day bëgg waxtaan wi yàgg lool. te bu ko bu ko bu wirdo bu ko yaay ji wooyee bu gisee téléphone bi di sone du ko bañ a bañ a ñàkk jël muy laajte ba xam ndax comme waxtaan day diire man na bañ a jël yaay ji te dara du ko ci fekk. waaw. yaa ji sax bu fekkee ci wàllu téléphone la dafa war am kum jox téléphone bi ko joxee na moom ne ko sa yaay lay xoo wala koy doon say sañu wuyu su boobaa nag boo ko lu wax ja gudd gudd gudd yàqu dara ca wirdo wa bis bu demee ba yaaje daanee wax ja dafay sof rek fa mu xemoon ca wirdo wa continuer hmm. tontu sa baay amul limite tontu sa jëkkër amul limite tontu sa sëriñ bi da damay wirdo amul limite tontu sëriñ boo xamee tamit am na darajatul xilaafa ci tariqa bi donte mayu la wir wirdo mm. ndax bis boo yeggee ci darajatul xilaafa ci tariqa bi rek koo may wirdo doo mayul wirdo yëpp yaay sëriñam mm. darajatul xilaafa nag lu ñu doon la yëg-yëg la nekkul rek ne niñ ko niñ ko jàppee nii ci aada la ndax moom la maam xalifa ne wa kullu lazi qad kaana li cheikhi waajiban ada waajiban min baxdi lil xalifati mm-hmm. képp ko yegg maqaam boobu di xalifaab Seexu Tijaan koo may wirdo koo yëpp yaay sëriñam soo ko waxee dafa war a dagg wirdo waaye yow nag boo ko njëkkee waxee yow taalib bi wala yow jëkkër yow yow yow jabar ji wala yow doom ji ci sa waajur wirdo na ndax waxee sa waajur wala waxee sa jëkkër du farata waaye tontu ko nag mooy farata ndax kon tontu bi moom xamul limite lu yàgg-yàgg moo xam ni téléphone la moo xam ne la mm-hmm. waaye nag bul gis téléphone rek gaa wuyu mm. ndax boo wuyoo fekk du sa yaay wirdo wa yàqu na waaye dafay war a am ko ne sa yaay lay woo bu yeggee foofu mbaa sa jëkkër lay woo su boobaa nag sañ nga koo tontu lu mu yàgg yàgg yàgg yàqut dara ci biir. macha allah ah, jërëjëf kii dem dafay ci oustaz moom ba tey jii neen dafa bëggoon nga tekkil ko baatu la hawla wala xoota illa billah hmm. lan lay tekki. loolu daal yàlla ñuy wane rek ñaan gu am doole yonent bi daan ko wax mooy ne amuñu pexe ci baxi mooy yàlla. amuñu kartan ci topp yàlla. lu ca nit nekk rek yàlla la dimbale. bu yàlla dimbalee nga di ko topp di julli ji fajar di jàngal quran fonk say waajur ngoo liggéey maandu bu ko bu ko bu ko bu ko ngóoroo bu ko ndamoo de boo ko ndamoo rek yàqule xamal na yàlla la ca dimbale mhm. naka noonu tamit boo demee seytaane man la sa bakkan bi màmm ci def loo xam ne lu defawut la loola tamit yàlla mooma moo la bërgël ndax léeg yàlla dafay gàcceel nit ki kon nag amuñu pexe ci moy yàlla gi mais amuñu kartan ci topp yàlla gi lu dul ñu dimbali koo yàlla lu ñu ci yàlla dimbale rek loola yomb ku yàlla dimbale mooy yàlla jafe la ku yàlla dimbale topp yàlla yomb la loolu rek lay tekki mhm. macha allah ah, kii dafay laaj oustaz moom itam ba tey nee na ndax nit mën na takk euh, rakk boo xam ne ay doom baay leen maanaam sa doom baay nga takk doomam koo bokk ak baay maanaam déedéet koo xam ne seen baay yi ñoo bokk nday ak baay mhm. ay doom baay ngeen ah loolu kay takk doomam dara nekku ci. Mm-hmm. ñoom ñoo ñooñu kay bu ñu mënee takk doom jee waxuñu waxi nopp. Mm-hmm. koo xamee na ni tey seen bàyyee bokk ndey ak baay wala ñi bokk baay. Mm-hmm. yow bu doon góor ngay jigéen mën nga koo takk. kon nag kooka yow su fekkee yaay góor doomam ji yow nga dem takk ko dara nekku ci la. waaw euh, loolu la bokk googu dara. mbokk gi la waaw waaye nag su fekkoon ne yéen bokkoon benn baay. koka mom boy gor ngay jigen mu len takandi hmm. lu soqee ko ca koka timit mo hmm. xam dom bu gor la wal dom bu jigen la yow mi bok ak mom ben bay wala ngeen bok ben yaay wala ngeen bok nday ak baay mënoo takk doomi ñoña hmm. waye nak comme sen baye bok dara neeku ca ala fi dañuy wax ne bo kam xam sey bu dagan dal bu fekke buñ lay laaje nu ngeen bokkee nga ne maag mom rek haram na bo ne suñu dara neeku ca ndax ko boko ko wa lu ngeen bokk day wax ne suñuy bàyyi ñoo bokk bàyyi nga xanaa loolu la koy waxee de. Mhm. suñ baay ñoo bokk baay ñoo bokk bàyyi. Mhm. waaw nag loolu dara ñëw ci. man mhm, jërëjëf macha allah gën a yaatal mbokk yi la kii dafay laaj moom itam ba tey jii si safa witar nee na moom daf doon faral bu jullee gee julli safa day def ay naafila bu guddi gi gën a sori mu doo ko def witar magam bi na ko waroo defee noonu safa witar dañ koy taqale muy laajte ba xam est-ce que loolu muy defee mooy yoon bi wala li mag ji wax la. li mag ji wax la dañuy bañ sax diggante safa ak witar ku fa wax dañoo bëgg boo sëlmalee ci safa rek avant nga fay wax nga teg ca witar yow nag boo ko teqalee mu dem heure bu ne nga nelaw fa wax fa waxtaan fa boo lëggee boo demee bay julli jàppal loola nga doon naafila rek nga jëndiwaat yeneen ñaar rakkaay safaa ndax safa mooy rek lu tollantiku lu mën ñaar mm. nekk peer daal. nga sëlmal bu paree nag nga indi witar bi mooy loo xam ne impair la moom kenn rek la hmm. dañoo bëgg na nga koy taqale diggante ba sax bëgguñ ko fa wax hmm. waxumal nag ku fa nelaw waxumal ku fa def yeneen ak yeneen ak yeneen hmm. kon nag loolu li ko mag ji wax daal loolu la ñun yan saar moo ñuy xaar ci safal witar loo mokkal baax na alquran amut pet léppam lem la waaye boo ma ci masa bu Malik bi danay tànn lu mel ni premier rakaab safa nga jàng ca sabbi isma rabbikal aala deuxième bi nga jàng qul ya ayyuhal kafiruna mu jeex witar bi nag nga jàng fatiha qul huwallahu falaqi naasi waaye lii ma wax la su fekkee mënoo ko mbaa nga man ko dem tànn leneen timit dara néew ci mhm. am na ñoo xam ne nañuy jullee safa ak witar mooy safa ba la jël ñaari fatiha ak benn suratul qadri mhm. bu witar ba ñëwee ñu jàng ñaari fatiha ñaari suratul qadri ak lixlaas ak falaq ak naasi mhm. yooyu yëpp baax alquran daal léppam lem la loo ca laar rek suukar sa dugg la mm. waaye xamul kenn julli gu xamee dañuy recommandé ne lii rek lañ war a jàng ci saar yi rek ku ko jàngut yàqu na mm. loolu fatiha rek moo ko xëyoo ci julli yëpp mm. fatiha moom ci rakkaar bu ne julli gu ndax yu doon doon ne laa salaata liman laa fatiha la la liman laa la am riwaaya bu ne laa salaata liman lam yaqra bi fatihatil lu dul loolu nag saar woo ca teg rek jërëjëf Sass kii dafay laajte moom it nee na bu fekkee sa papa day jëfandikoo euh, drogue maanaam lu demee ni sàngara est-ce que yow doom ji bula la yónnee wala boog mu ñaan la xaalis mu leer la loolu la koy defee sañ nga koo may wala nga doxali ko yónnante boobu. waaw su fekkee papaam kay mooy jëfandikoo lu mel ni drogue yow bu la ñaanee xaalis bu sa yoon nekk nga vérifier lu mu koy defee. Hmm. may ko rek jox ko rek lu mu ko mën a defee moom loola yëfi boppam la waaye sa yoon nekkut ci. Hmm. lenn ci boroom xam-xam yi nag ñaari xaaj lañ lañu ñii xoyofal lool dañ ne su fekkee dafa laa yoon yónni sàngara mën nga ko jën ñenn ñu ne déedéet tagalut ndax daal innama taatu bil maaruf kenn ku ci nekk na ña koy saxal ak ña koy dàq ñëpp utal nañ ko yàq waaye daal la gën a dal nit kenn du ko dimbale ci ak mooy yàlla mm-hmm. te ko jëndalee sàngara mbaa nga def ko dugal nga ko ci wala taxawunu alal ismi wala ko dugaan ji yàlla tere woon mm-hmm. ña foofu lañ koy dugal ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom dañu jàpp ne dañoo war topp waajur rek ak lu la def nangam nangam euh, am nañu ci nangu ñu néew ñoo xam ne ne bu la yónnee sàngara mën ngaa dem nga jënd nga nga jëndali ko ko mais ñu bëri ci borom xam-xam yi d'accorduñ ci loolu hmm. ndax yonent ne innama taatu bil ma'ruf hmm. waaye bu wàllu ñaan xaalis moom bu la ñaanee waroo toog sabam lay ñaan yow daal jox ko lu mu mën a defee moo xam. Mhm. macha allah man ñu ngi may signaler li ñu amoon ci waxtu jaaxlu sax xanaa sant la gërëm la bu baax a baax gërëm ba nga xam ne ñooy suivre Diiné Dji TV. waaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Oustaz jërëjëf mbokk yi doon seen émission laaj ak tontu jërë ngeen jëf.